Bonjour chers auditeurs, le taux de malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 5 ans est estimé à 19% dans la région de Diourbel. Un atelier pour la revue régionale la nutrition a réuni Conseil national de développement de nutrition, est au micro de Adama Ndiaye. Par rapport aux dernières notamment l'enquête EDS de 2018 et 2019 montre qu'au niveau de la région de Diourbel par rapport à la malnutrition chronique, la région est à 19%, relativement satisfaisante parce que euh, par rapport au seuil de l'Organisation mondiale de la santé, euh, si la euh, de la malnutrition chronique est inférieure à 20%, vraiment c'est la situation satisfaisante. Mais en termes de valeur absolue quand même, y encore des enfants dans la région de Diourbel qui souffrent de retard de croissance ou bien de malnutrition chronique. Raison pour laquelle aussi euh, la région de Diourbel fait partie des, des régions prioritaires du grand projet euh, financé par l'État du Sénégal et la Banque mondiale qu'on appelle le PIPA-DHS, un projet investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal. Si nous prenons la malnutrition aiguë maintenant, la région de Diourbel enregistre quand même des prévalences relativement élevées. parce que euh, supérieur à, à, à, à 10%. Et donc la situation est précaire par rapport à la malnutrition aiguë, mais avec l'ensemble des interventions euh, de tous les secteurs ici présents, euh, nous pensons que d'ici euh, quelques années, très bientôt, euh, la région de Diourbel enregistrera quand même des prévalences beaucoup plus faibles. Euh, nous attendons des collectivités territoriales une meilleure institutionnalisation de la, de la nutrition. C'est la porte d'entrée pratiquement de toutes les interventions, mais nous voudrions un financement quand même euh, de la malnutrition. Et pour cela, il faut que euh, les collectivités locales s'inscrivent dans cette dynamique de mobilisation de ressources pour euh, un financement intrinsèque de la malnutrition à l'échelle de leur collectivité territoriale. L'Organisation mondiale de la santé a lancé la première enquête mondiale visant à mieux comprendre les besoins de toutes les personnes touchées par le cancer et à y répondre. L'enquête fait partie d'une campagne conçue avec les personnes touchées par le cancer, est destiné à donner un plus large écho à leurs paroles, conformément au cadre de l'OMS visant à mobiliser de façon constructive les personnes atteintes de maladies non transmissibles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. daleen nag jàmm li mu tuutànk yi dund ak feebaru xiboon toll nañu ci téeméeri ndaw yoo jël yu amagul juróomi at fukk ak juróom-ñeent ci diwaanu Jurbel ñu fësal lu ni mel gannaaw ab lëlu ñaari fan boo xam ne ñu ngi ko doon amal ci wàllu nutrition foofee ca Jurbel Ndeye Rokhaya Seck mooy jiite bureau régional conseil national de développement de nutrition ñu teewlu ko ci micro Adama Ndiaye. bu ñu jëlee xeetu malnutrition bi ñuy wax retard de croissance bi nga xam ne day natt màggaayu xale bi ak par rapport ak at yi gis nañ ni région de Diourbel euh, eggagul vingt pour cent te waaye xaw na ko jige waaye boo gisee sëy ni ñu ko classé boo demee ci dëkk nga nattu ko mataloo vingt pour cent dañuy jàpp ni situation ba baax na waaye du tere ci biir gox yi goxaat yi am na ay xale yoo nga xamante ni ñu ngi am façon xiibon boobu muy retard de croissance màggaay bu jaarul yoon te loolu du rek ci njoolaayu xale bi mais day jàppale aussi maanaam développement xel bi nu mu war a màccee loolu région de Diourbel am na ci 19 pour cent mais li ñu gënal daal ak secteurs yi fi toog tey yépp mooy ku ci nekk ci li nga doon contribuer nga gën ko renforcer ba ñu wàññi bu baax a baax a baax euh, mbir mi fii mu toll fii ci Diourbel. te bu ñu dikkee ci beneen xiibon bi muy malnutrition aiguë. boobu aussi baaxul dara parce que mën na lor xale bu demee ba nga xam ne dafay wax day nekk li ñuy wax malnutrition aiguë sévère boobu gis nañ ni région de Diourbel mu ngi à à 19 pour cent am war nañ cee jóg jóg bu baax a baax pour téeméeri xale yoo natt euh, li ko ci am du mat fukk waaye tey téeméeri xale boo natt fii ci Diourbel fukk ak juróom-ñeent am nañ ko fi donc war nañ defaat yeneen jéego yu am solo pour gën a wàññi aussi façon nga xiiboon boobu fii si Diourbel dañoo bëggoon gën a ñaax collectivité territoriale yi pour ñu def li ñuy wax institutionnalisation de la nutrition maanaam ñu jël ko moomal ko seen bopp dugal ko ci seen document de planification yi tëralin yépp ñu mën ci dugal nutrition ba bu ñu gisee programme ak bu ñu ko gisul yépp fekk na ñoom mu ngi seen bokk ci seen ay priorité beneen bi ñu bëgg leen a ñaax waxtaan ak ñoom ak ñi fi toog ñépp ba ñu génne ay piste yoo xamante ne dina tax ah ñoom ñu mën a jël ci koppar bi ñu am mu néew mu bari ñu dugal ko ci nutrition institutionnalisé. organisation mondial de la santé lancé na enquête mondiale bu njëkk soxal ñiy dund ak feebaru cancer ak li nga xam ne mooy seen yitte enquête boobe nag bokk ci ab campagne bu mag a mag boo xam ne dañu koy def ci ñi nga xam ne feebaru cancer da na laal mu doon ñoo xam ne dañ cey faju ba wër wala ñii faj wala gunge ñiy dund ak feebar bi wala ñi nga xam ne ñàkk nañu kenn ku leen jege koo xam ne feebaru cancer moo ko yóbbu loolee nag li ko waral moo di dañu bëgg gën a may nopp ñi nga xam ne ñu ngi jànkonte feebaru cancer ngir xam naka la ñuy def ba saafaraal seeni jafe-jafe mbokk déglukat yi fii la ñu yem ak yéen ñu yendoog jàmm